làmp bi. lamp bi. lamp bi. seen émission làmp bi. niital leen ba gindi leen. ci lépp lu la ump. fii lay amee ci. Uras Info. di dalal ay kàngam. kenn ku nekk ca la nga fare ñuy waxtaan ak yow ngir nit ko mu leer. ñooñ politique ba ci diine. économiste artiste. lamp bi. lamp bi. bul fàtte abone ngir dooleel ñu. boole ko commenter ak partager. bësal cloche bi. lépp lu bees dikkal la. mbokki setan sen site bi di Uras Info ñu ngi leen di nuyu di leen ziaré bu baaxa baax di amane mbekté benen yoon andat ak yeen ci sen euh, émission bu mag bi di lampu bi tay nak lampe bi ma amane mbekté and ak yeen andil leen benn kangam ci réew mi tay muy première fois ñu wara dalal jigen jo xam deug deug mu ngi lu muy danaka deug deug ma xama goor la yore tay nak euh, mbokki lampe bi ñu anda ci and ak euh, rôle adaptive ànd seen seen site bi di Uras Info war a dalal Seyda Moussa Koura Mbaye muy jigéen joo xam ne jigéen ju man góor la ni ma ko waxee léegi mu jiite réseau bu mag boo xam ne mu ngi lëkkale ay jigéen yoo xam ne ñoo nekk fii ci sunu réew di senegal waaye fële ca réew Gambie muy réseau boo xam ne bu mag a mag la mu ngi boot jigéen ñoo xam ne dëgg-dëgg ñoom ñëpp tamit ni ma ko waxee ay kàngam lañ waaye dañu waxtaanee moom tamit ci wàllu xadra Ibrahim bi mi nga xam ne fi la nekk dëgg-dëgg di fi def liggéey bu mucc ay ba Mawlaayal Khalifa Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahim Niass tuddee ko umul fayda danañ ñëw ci tur boobu ak Seyda Moussa Koura Mbaye lan moo ko dugal ci faydu bi fan la commencé loolu danañ ci ñëw ak moom waaye tamit actualité politique bi nga xam ne moo lëmbe réew mi waaye li nga xam ne moo toj jamono ji fii nii ci diwaanu Kaolack danañ ci dugg ak moom ci moom ak li nga xam ne mooy commune bu Kaolack waaye département bu Kaolack waaye yitteem tamit ci li nga xam ne dëgg-dëgg mooy ambition politique bi nga xam ne euh, jamono ji am na ko bala maa guddee rek dama koy bàyyi euh, Seyda Moussa Koura Mbaye yaa ngi ci euh, Uras Info ak Roulu Adab TV ñu bàyyi la rek nga néew yaa ngi émission bu mag boobu di làmp bi ahsanta bi zi izzati wal jabaruti tasawti bi rabbil malakut tawakkaltu ala alhayyil lazi la yamut اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى علي قدم دار رازي ñu sant yàlla di def tawasul ci sunu sëriñ Maulana Cheikh al Islam El Hadj Ibrahima Niass di nuyu sunu khalifa bu tedd bi Cheikh mohammed Mahi ibrahim nias sang muy nga xamne mo tuddé bopam khadimul ummati te muy deug nak di nuyu yit imamul al fayda tijani ndax bu ma ne imaamul fayda tijani moy faydu baay bi le fi mu toll ba fa mu yem mom la yàlla dogal tay muy imam bi ñu ne ñu ngi nuyu le porte-parole de la fayda cheikh mohamadou mahi di nuyu yit borom gam gi moy cheikh mohamadou lamine ibrahima Niass di représentant xalifa bi ci dakar waye itamit di euh, le président international bu ansarul din ñu ngi nuyu cheikh munhamina Ibrahim Niass mi nga xamne moy le président national ansarul din di directeur de institut islamique di nuyu njabootu baay yépp nag di nuyu muqaddam yi di nuyu samay mbokki taalibe ak samay mbokki jigéen di nuyu presse bi jiital ci nag ñi nga xam ne ñoo fi teew tay muy waa Iras Info ak waa Roul Adab TV ñu leen di nuyu di leen tatagal di wax alhamdulilah. macha allah jërëjëf nuyoo bi am na solo. xalaa rek euh, damay jël sama nuyoo man tamit dugal ko ci sa nuyoo boobu noonu mu yóbbuwaale nuyoo Uras Info waaye ak nuyoo Roue bi ci Mawlaay Xalifa waaye ak mbooleem xadara Ibrahima ñëpp ñëpp ñu leen di nuyu leen ziare bu baax a baax. xam naa tey bu ma bëggoon a waxtaanee kan mooy Seyda Moussa Koura Mbaye ci sa jaar-jaar du xaj ci benn émission te am na point yu am solo yoo xam ne mu ngi sama kanam wante tamit bu ma bëggoon a waxtaanee Seyda Moussa Koura Mbaye ak xadaratu Ibrahima fan la dooree. lan nga may tontu <laughs> waaw mu ngi dooree ci eh, mbokkoo ba noppi ndax eh, eh, dama juddu fekk samay wayjur nekk ak maulana cheikh al islam alaaj ibrahima ñas waaye yàlla dogal wayjuru wu jigéen wi juru ak man may caatam waaye ak mag yi nga xam ne ñoo mag njëkk a gane àdduna ci sama loxo lañ jaar bi ñuy tarbiyu ba am fatu ba di ko sante borom bi nag wa amma bi ni'mati rabbika fa xaddis di sant yàlla itam ci bi nga xamee ne gannaaw ba nga xamee ne ñëw naa ci oustaz Ibrahima Mahmoud Diop ci sama nijaay ne ko nijaay dama bëggoon nga may ma wird mu ne ma dama mu ne Faat Jóob mooy soxnay Baaba Lamin ba faatu ca Màkka maa ngi koy ñaanal yal na yàlla seral tëraayam ba te yokk leeram mu ne ko yóbbu ko ci imaam Asan ma ne ko nijaay yow laa bëgg nga ma mu ne ma damaa bëgg mu gën a baax ndax Baye def na ñu jaar ci buntab sëñ Aliou mu ne ma xanaa xamoon ni njabooti Baye gi yëpp sëñ mooy seen sëriñ demal jaaral foofa lii moo ma yóbbu ci loxo imaam Assane mu may ma wird salaatu fatiha waaye nag imaam Cheikh Ahmad Tidiane Cissé moo ma may ijaaza am naa ñeenti ijaaza waaye bi ko juróomeel moom moo ma ko may am na ñaari at léegi alhamdulillah may yaayu daayira des étudiants taalibi de Baye Niass Cheikh Mouhamadou Nazir Ibrahima Niass ba mu ñëwee université fekk ma fa ma nekk xale yi di jàppalanteeg ñoom mu ne ma dénk naa la njaboot ak baay gi ànd ak taalibe nag lu jafe la mu ma lu jafe la ndax eh, taalibe amul xam-xam amul am amul man-man waaye moom lay wut. boo muñee bés dina ñëw nga yaayi président yi yaayi ministre yi yaayi docteur yi yaayi magistrat yi yaayi professeur yi lu ne lim na ko ci mbaax yaayi juriste yi lu ne lim na ko. waaye tëgg la gu wér tey néew na cadre boo lim tey ci pays bi te newul moo doon sunu yaay bi ñu nekkee université ku mel ni Habib Thiam Zara mooy wax toujours naan buñu bu mën a maan soos fa dem ndax mooy sunu yaay eh, di ko tooñee ñu di ci sant yàlla bu baax ma am it eh, mbégte di ko dund bés bu ne ba nga xam di wéradi sax bu ma dalee ci sama lal bi lañ may fekk waaye bés ele euh, ouverture cérémonie ouverture foire internationale bu Kaolack dama yegg si di nuyoo préfet moo waaxu dëgg tànk yu foor gàttandu ci fi ma taxawoon nuyu ma sëgg mama euh, bi ma nekkee université di jàng yaa sama te tey man maay préfet Kaolack man la de Fall loolu lu ko gën a neex ci àdduna amul te la ma waxoon Niass Goumba Abdoulaye bés bu ne maa ngi koy gis yal yàlla gën ñoo tàcc ba nga am tur bu bees ci xadara bi umul fay maa ngi la koy wax sax yaa ngi muñ waaw lan la fan la jógee fan la doole xam nga euh, Baye dafa baax baaxle Niass euh, yàgg fori waaw di di jàppalanteeg ñoom yàlla moo ma xiir nag nattuma ci taalibe man damaa bëgg taalibe lan moo waral loolu ndax Seyda dañ koy gis weeru koor muy génn ay kii di yóbbu ci taalibe ay ndimbal waxtu wu ne sa diggante bëgg uuf njaboot gi ku nekk naan mama mama lan la dama dafa nekk ci man nag ba may lu tuuti neuf ans laa taalibe bi ma njëkk a for ta Kaatim Touré la tudd sama yaay ma ma gis xale bi taxaw rek di yalwaan am ñetti at wala ñeenti at taxaw ci bunt bi di xoosu di okotu teeñ yeeg waga yaa ngi ko sonal rek ma commencé jooy daal di ko jël euh, dugal ko ci wanag wi summi yére yi sang ko euh, pare baxal ndox sotti ci gis teeñ yaa ngi tamb ci kaw ma ma sama doomu nijaay bu ñu yaroon ma jël yére mi solal ko sama yaay yegg si jóge mars ma ne ko dimbale ma watal ma ko ñu wat ko xale boobu tey borom kër la mu ngi fii Banjul am na soxna am am na ñetti am na tey am njabootam ñu ngi koy sante yàlla waaw xam nga euh, euh, dama yàgg ci taalibe yi di for ndeyjoor ak càmmoñ am na bés sedd jot bu ñu xëyee duñ gis benn taalibe sama yaay toog rek ma dégg muy ree ma naka lan la mu ne ma benn xale daal moo taxaw rek Euh, mu am beneen xaritam bu ko làkk tukkuloo na ko yaa ngi taxaw fa bu la maire bi gisee ba sang la di nga dee de sedd bu métti bi ndeke ñoom loolu lañ ma doon dawee donc di leen sang di leen euh, fajal seeni góom di leen changer li yére di leen joxi daal loolu dama ci euh, juddu dund ci màgg ci naturellement dafa mus a nekk ci man waaw sama wayjur wu jigéen ñi dimbale ma ci lool daan ma ci encourager umul fayda nag li ma lay wax toujours umul fayda yi bëri nañ ci pays bi ndax bàyyi njabootam yëpp umul fayda lañ Eh, sunu yaay yu baax yi mu dencion yep ay umul fayda lañ mm, mag ñu baax ñi fi jaaroon yep di uuf talibé yi di dimbale umul fayda lañ khalifa bi dama ñew bes eh, rek boba ñu ngi waaj défar defar eh, cimetière yi mm, yagul moy bi mu inondé ñu ñuy gërëm nak ci biir lolu ku melni pap Demba bi tay ci taxawayam ndax génne na ci lu mat juróomi million jënd ay jënd ay euh, pompe matériel ñu di ko liggéeyee di ko pompe cimetière yi ndax booba métti na lool te ay waliyu yàlla rek a fa tëdd ku ne xam na ne njabooti baay geeg soxnaam yeeg euh, mag ñu baax ñi ñëpp fii lañ tëdd ndax li baay wax ci cimetière yi tax na ba ku jóg rek utal si sima cimetière yi waaye euh, ci loolu dama ñëw ut ay expert ne lii daal munuñ at mu jot ñu di ko régler nañ leen seet benn solution ñu war a ñëw nag may génn rek dajeeg euh, góori yàlla gi muy Baye Makhtar Diouf euh, mu ne ma dama la remercier si woon di la féliciter ci sa euh, baggu doom ji muy rakkam Mohamed Diouf ñu sant yàlla bu baax ci loolu yegg ci xalifa bi rek di nuyoo toogaguñ sax mu ne ah Nigéria de am na umul fayda gaana it am na um am na ab abul fayda Nigéria am na abul fayda Ghana am na abul fayda jot na senegal am umul fayda yow yaay umul fayda euh, baat boobu ma defe ne damay gént ma ne ñii laajaat ko mu répété ko ci mbaax ga ca tabe ga ci maqaama ak a ci maqaama bu bu sañoon ñëpp ca kaw la ñuy ne waaye euh, bi ñooñu euh, experts yi woote ni dañuy ñëw ma del dellu woowaat ko téléphone mu yëkkati ne ma kooku ma ne ko man Seyda Mouzikoro mu ne ma umul fayda nee naa la del uyoo fayda ba fan yii Dakar bi ñu bi ko président Macky di recevoir euh, bi ma ñëwee dama dugg rek euh, Habib Thiam gis ma ne ma umul aarifina mu ne ko umul fayda nee naa leen umul fayda la tudd kon nag ñu ngi sant yàlla ci mbaax googu ci tabe googu ci yaatal boobu Eh, mu ngi ma dénk daara ji ak daara yi sax laay wax ñu ngi ciy def lu ñu mën eh, di sant yàlla it ndax eh, département Ansaarul Din présidente commission sociale ñun lañ ko dénk ñu fas yéene nag liggéey ci liggéey bu mucc ayib jàppalante ci ak daara yi ñu war ñoo aussi sur le plan national muy fédération daara Qur'an yi Sénégal yëpp daje samp ay ndey daara ñu né nak département Kaolack Seyda muskoro Umul Fayda lañ koy denk lolu nak dimanche lay doon inshallah allah gan ñu koy téwal waaw alcorane dal ñun moy moy liñu ñu waaw waaw eh, dama dama dama dama fa ne ci man nak ndax eh, dekk bu sama dañuy wax naan bu timis ji wala fajar si jalub taalu jang bi mo la naan mbayen ga nga ne muy tay bam Eh, for eh, waaw eh, jaar nañ ci daara ji ñun boo jaarul ci daara ji sax doo dugg école moom kayif noo mën a def buy ñetti fan di nga ko def ci daara ji waaw muy sanc baaba mbay sañc aliou mbay tay ba mbayeen moom fii yëpp dëkki jëkki cosaani daara lañu buñ ko toppee ci mbiru faydu bi buñ yemoon moom ci diggante moom xalif bi rek dëgg dëgg ëpp na émission mhm. diggante moom Cheikh Mouhamadou Amin Baba diggante moom imam Assane mhm. imam Cheikh Oustaz Braham Diop almarja bi ñu ko waxee jir ci nekkoon rek séddaa dañ fa jógee waaye li ñu wax rek bu duuf si nag bi xëri cin bi te xam naa dañu si ñëwaat beneen yoon ñu dell nag ci beneen point muy jëm ci réseau femme Sénégal Gambie muy réseau boo xam ne bu am amam doole la ñu ne yow yaa ko jiite bëgg nañoo xam naka la créé yoo ak kañ lañ ko créé ak fan lañ ko créé jërëjëf réseau bi li ko jiitu sax mooy soppe yaa Seyda Moussoukoro mbay yi yi nga xam ne euh, tey am na numéro un numéro deux numéro trois numéro quatre dama ñëw bés rek sama yaay ne ma ah, waa koñ bi da ñëw nañ fi nee nañ dañ buggoon nga dimbale leen banque bi lebal leen xaalis ñu liggéey ma ne ko ah xaalisu banque de ku ko jàngee liggéey bu yàqoo di nga am problème nañ ma may tuuti rek may yéeg tuuti rek ñu owaat ma ne ma kaay wuyu maam ma ñëw fekk jigéen ñaa ngi toog mu ne ma ñii la ma ne ko may leen ma man nag béykat laa fi may gis nii dama ami tool waaw fii Mbadakhoune maa ngi fiy exploité ay lée maa ngi ci tool yi de maa ngi ci tool yi macha allah fan yii rek lañ doon bojj bo bo bo ñu ngi doon bojj fan yii rek macha allah eh, damay joxe sax chaque année ci azaka yi eh, eh, dugub ji waaw waaw ci ziar bi dinaa joxe sama ziara dugub bu baax ci loolu bi ñu waxee ne Eh, jigéen ñooñu dañ bëgg ku leen dimbale ma bàyyi bañ bojj ba eh, sox ba noppi ma ne leen dajale leen nag jigéenu koñ bi yëpp du ma dimbale ñaar du ma dimbale ñett nag koñ bi yëpp ñëw ñu bind leen ñuy quatre-vingt-dix-huit femmes. ci laa nag fi mu toll cinq cent ci jox leen indi leen équipe bu leen formé leadership dynamisme organisationnel éducation financière ak entrepreneuriat indi ku leen formé ci céréale local cotiser loo leen ku ne mille francs jëndal leen ci ay blouse ñu commencé nag di liggéey liggéey boobu tey sëñ bi moo dem ba euh, man tukki naa ñëw fekk Covid bi gañe ma sama place yàqu jigéen ñooñu dañ dajale ba am un million ñëw indi ko na ne dama ne ma am téye ko nga dimbandikoo ko dañ la koo lebal ba ba ñuy eh, waaje tabaski bi ñu bi tabaski bi desee une semaine laa leen ko delloo dafa neex ci sama xol neex parce que eh, nit koo xam ne keroog ba mu ñëwee di la jooytu boppam situation yam la nettali rus nga koo nettali soo ëlbatekoo mu dem ba yëg ne yaa ngi ci jafe-jafe mu dajale ba am un million ñëw ne dañ lay jàppale si ñooñu ay gor lañ ay jullit lañ waaye neex nañoo àndal itam waa maa ngi leen di gërëm bu baax nag soppe yaa Seyda yooyu de passage réseau bi nag li ko waral mooy ci liggéey bi ma nekkoon rek la ndax euh, euh, dama àndoon nag waa chambre de commerce ñu dem ci benn forum euh, dakaar boo xam ne vice présidente bu Gambie moo ko jiite woon ak juróom-ñaari ministre bi ñu ñëwee ñu def forum ci biir forum bi la ma vice présidente yónnee secrétaire am bu ñu naan Naasi Ñang ne ko waxal Seyda Moussoukoro ne ko dama ko sopp seetaan naa benn émission bu ñu naan njegemaar dama dem ba enregistré ko di ko seetaan ak seetaana d'ailleurs njegemaar boobu moo indi sax sama xameel ndeysaan ak président Serigne waaw ndax bi mu séenee émission boobu ci télé bi seetaan ko dafa oo ku ñuy wax as jaxate ci marché bi ne ko man xaw ma woon ne euh, dëkk Kaolack am na jigéen bu mel nii ki jambar le de bëggoon am numéro as ne ko xaaral laaj ko ko as ne ko ko bu baax waaye xaaral laaj ko ndax mun nako ko jox sa numéro ci la ñëk a jokkoo ak euh gannaaw gi nak ndeysaan ñu dajé Milano Expo yi tamen ma fa yobbu won sama bop ak euh, ci nimbali ASAPEX ñu encadré ñu ñu dem fa la ñëk nak nuyenté ak président Serigne ñu nuyenté mu ne ma da ngay ñëw nak chambre de commerce bindu. ndax euh, nga bokk ci activité yi ñëw jàppale ñu euh, loolu moo ma indi woon bi ma ñëwee itam macha allah ñu ànd dem ca forum ba euh, ba ñu demee it yàlla dogal vice présidente gis ma ràññee ma ba ñuy plaindre nag plénière bi danaa ko wax ndax toujours message la bu may lancé ndax ba ñu ñëwee ba yegg si ci plénière bi dama jël parole man leen dama dégg ñu ne union européenne ne union africaine Europe dem naa jo départ Paris ci oto ba ba euh, itali Italie ba Autriche gisuma fenn barage da ngay taxaw fay sa péage yàlla ma ne ko man dama gis Sénégal dañ ne xaw ma Afrique dañ ne Union africain da ngay fay sa douane ci buntu frontière bi commencé di fay barage bi ba ngay dugg sa nekk man nag li may laaj mooy kañ la barrage di génn Afrique salle bi yépp appuyer bi ñu paree vice présidente yónnee woolu ma ne ma fan yi dinaa la contacter bi yàlla euh, dogalee loolu passé une semaine après rek benn jigéen ooma muy Adja Adulet si ma vice ma yebal nee na la wax nga ut fukki jigéen Sénégal ak yow muy benn man ma jël fukki jigéen Gambie ak man muy ben muy ñaar fukk ak ñaar ñu boole créer benn association benn réseau bu ko defee mën a dajale jigéen ñi jéem a seet nu ñuy jàppalante pour liggéey lii moo indi woon loolu ma ne leen man kat chambre de commerce laa àndaloon ca forum ba kon may leen ma ma dem waxtaan ak président Serigne ca laa ko oo téléphone ndeysaan euh, fekk ko Touba Sandaga mu ngoog ñu bokk jotaay keroog bokk añ bi ñuy waxtaan sax oo na jàkku mbay ne ko ah seen forom bi day bokkul ak forom yi nga xam dañuy pare rek dugal ci tiroir yi bii jigéen ñaa ngi koy concrétiser waaw euh, ku jambay ne bu ñu ko defee de man bokk naa ne leen nañ ma jaay carte ñu daal di ree euh, ñu déparé fa nag ci la ñu soog a dem dem euh, moom daf ma ne woon tànnal rek koo jël baax na ma ne ko damay jël juróom ci ay nit ñu ma wóolu mën a liggéey ak ñoom waaye jox chambre de commerce aussi juróom yoo xam ne danañ leen mën a jël bu ko defee ñu ànd bokk liggéey loolu moo jur réseau bi bi ñu demee ba yegg euh, Banjul chambre de commerce bu Gambie lañ ko sosee gis nga vice président dafa taal otoom ak cortège am départ ñëw ba chambre de commerce le même jour mu créé ñu réseau bi. macha allah euh, leer na bu baax baax li nga xam ne wax nga ko ci naka lañ ko créé ak naka naka ko créé yooyu yëpp ñëw nga si waaye dama bëggoon rek si ñaari baat yu ndaw bëgg a xam yan réaliser loo xam nit mën na ca teg bët wala teg ci loxo ne lii réseau bi moo ko def si allah lu tabarakallah euh, bokk na ci tey bu ñu yow en tant que Gambien man en tant que sénégalais al sénégalaise su ma ñëwee Gambie. dootuma dem hôtel fi ne nii kenn ku ne sa yi morom nga moo lay dalal moo lay jox la ngay lekk moo lay jox loo naan moo lay solal moo lay toppatoo ba sunu doom yi sax dañuy demlante léegi ay vacance ci int intégration boobu. tàggat euh, formation yi ñu ngi ci. di def formation yoo xam ne euh, ren rek euh, li ñu capitaliser gum. ñu ngi ci cent vingt euh, femmes yoo xam ne formé nañ leen te pareeguñ parce que am na yeneen soixante huit yoo xam ne ñu ngi en cours actuellement di lijjanti ban saal lañ ko war a defee waaw te diggante boobu euh, li ñu fi indi ci ay Gambien ak euh, di leen former xamuñu nu mu toll waaw wax deug yalla ñi former nañ leen en savonnerie en céréales locales en euh, euh, euh, kii dynamisme organisationnel en éducation financière former nañ leen i tamit ci céramique former nañ leen ci fruits et légumes former nañ leen sax ci jardin micro jardinage former nañ ci lu bëree bëree bëri bëri jigéen ñi dal ñu ngi góorgóorlu macha ta ta ta be bee xam ah, waaye deug deug da ngay gis ne résultat rek doyoon na so lool waaw ah, macha allah léegi nag ñu ñëw ci dernier point bi. sa temps xam nañ ne bëriwul. Euh, bëggoon ñoo xam rek actualité yi. ndax euh, fan yii rek def nga fi benn daje bu nekkoon fi boo xam ne yaa ngi recevoir ki nga xam ne mooy Pape Demba bi directeur général bu Sénélec. Mm-hmm. Mm-hmm. ñëpp xamoon na sa diggante Serigne Mboup. sa wax jëm ci feeñ. Mm-hmm. nit ñi ne euh, Seydina Moussa Kura. dafa jël réseau bi yàqal ko ki nga xam ne mooy Pape Demba bi te ak Modou Ndiaye Rahma te réseau bi réseau mën nañoo xam ne Serigne Mboup daanaka cinquante pour cent am na ko ci lan ngay tontu ci loolu. loolu de li may dellooti rek mooy eh, la ma waxoon waaje rek moom laa lay wax xam nga eh, dama ànd ak moom ci développement du moom moom ma formé ci développement daf ma fekk ci développement sama soppe yaa Seydaa yi ñoo mag réseau bi fuuf ñaari at soog a judd ma jël lépp lu ma am yàkkal ko réseau bi di liggéey nak liggéey bu mucc ayib moom mu japp ci bu baax di ci defit lu rafet mo fa nekkone parce que dama ko amaleen yakal ci bir mu ngi ci bir ci bir réseau bi ñepp nga ci bir parce que réseau bi du ay euh, ben ben jigen ko gis mu taxaw rek mbolo ci nek ci gannaam presidente groupement nga wala association wala GIE amul kenn koo xam ne ñi nga fi gis nii ay benn benn lañ de réseau bi xajul fii ay junne nit lañ président yi jiit yi ñoom lañ dajale indi leen waaye buñ ne woon réseau bi xajul fii boobu ba tey nag ñu ngi ci di liggéey di massifier di ci liggéey liggéey bu mucc ayib euh, di wax ne euh, li may dalalee mooy waa Sénégal mooy rawatina wa Kaolack dama ànd moom ki développement mu fekk ma ci développement ma fekk ko ci liggéeyam moom itamit ñu ànd di liggéey mu dugg ci politique bi mu duggee ci politique it ànduma moom ci politique dañ koy reconnaître te même bu ma àndoon ak moom ci politique politique moom néegu sey yam da ngay nit ki nekk ngeen bokk lal bokk mbàjj bu sëy ba tasee nu ngeen di def yonent bi sallallahu alayhi def ne bu ngeen di sëy na ngeen muñalante na kon la nga daj ba ba agsi do kawah, ko wax doo foo toog naan lii lañ ma def ak lii laa am ma jotam waaye itam itam ah ba euh, sëy ba jeex mu ne nag ku ne maandu ci sa morom bul ko waxal lu ñaaw bum la waxal lu ñaaw ndax léegi jàmbur la ci yow yow jàmbur nga ci moom kon càmmiñ ak jigéen ñoo fi nekkoon di ànd eh, ànd ba tey ba tey mu ngi fi ndax bu dee chambre de commerce ñoo ko bokk institution wala boo xam ne képp ku juddu di sénégalais am nga ca cër rawatina ngay kaw la quoi eh, lu jëm ci wàllu politique nag gis-gisam ak sama gis-gis du benn fa mu jublu ak fi ma jublu du benn kon yaakaar naa euh, lu ñuy wax waxee amu fi euh, seet naa li nga xam ne euh, kilifa nee na ma nii laa bëgg nga defee ko ma topp ca loola waaye nag dama lay wax ne sëñ bi la bàyyi waxoon rek radiallahu taala anhu mu ne buñ taxawaloon poto bant bii ne bii Léopold la taxawal bii ne Mouhamadou Lamine la danaa jël sama carte bi jox ko Mouhamadou Lamine duma ko jox Léopold am na ci droit waaye man itam maa ngi lay wax ne fu sama sëriñ joxoñ foofa laay joxoñ xam nga lan la euh, dafa am benn étudiant université boo xam ne euh, ci élection euh, présidentielle yi su ma yeboo ma ne dafa jàngale lu bare dañoo jóge ca xadaratul juma ba baba Lamine warlu leen ne warlul na Macky Sall victoire 2019 mu ñëw ni jaaxle parce que man sama carte bi diw pare won pour jox ko te Baaba te bu ma defe lenen dana war baba dana war bay. te bu ke échecgee kon kondana suufeel sama sëriñ kon dal je suis obligé ma joxe sama carte xoolal keneen ne je valide keneen na je valide ñu jékkee-jékki panel bi yëpp je valide je valide ba ñëpp jël seeni carte valideel ko fa seen sëriñ joxoñoon ngir lan dégg ndigalu kilifa euh, jarul dugg ci yenn détails yi nag waaw ñoom mën nga leen nangul rek ne li euh, pour dem ci xam bu fekkoon mu am su woote woon dem and ak yi nga xam ne ñoom seen vision dëppoo na ci politique ak ci kaw nag seen gis-gis ñoom danañ loolu nangu nañ ko waaye li ñu mënta nangu mooy réseau bi and ak ñoom dem fële ñoom loolu mooy. li ngeen xamul mooy réseau bi su ma la yeboo ma ne la cent pour cent ku dugg ci réseau bi da nga naan li ngay njiit moo tax ma ñëw réseau bi fukki nit ak benn fi jóge woon dem te amu ci kenn koo xam ne dugg na ne diw mi moo tax ma dugg wala chambre de commerce moo tax ma dugg damaa dugg parce que dama sopp yaa Seyda damaa dugg yaa Seyda pour ngeen dimbali ma loolu la ñu àndee ba agsi fii man jëluma yëfi kenn sama liggéey et dama ñaq dama daw sama doole laa joxe dama daw a daw a daw sëriñ bi ba sama liggéey personnel ba ma doon liggéey yàqu taluma toog sax liggéeyal sama liggéey te ba may liggéey ci laa réaliser kër gi ci laa yóbbu samay mbokk màkk bu ko wañoon tey ëpp na fukki nit réaliser fi réalisation yu mag tabax na fi ay daara tabax fi jumaa da bënn fi ay teen mais liggéey ba dafa dem ba yàqoo yàqoo yàqoo yàqoo ba mënatumaa liggéey ngir lan daw ngir liggéey réseau ngir liggéey ci réseau bi daw naa ba sama oto yàqu te kenn jëndalu ma oto maa ko jëndaloon sama bopp te ba tey maa ut beneen oto bu may dawal kon réseau bi réseau Moussoukoro la Moussoukoro moo daw di liggéey ba yàlla eh, jàppale ko ba mu agsi fii mu agsi tey waaw maa ngi jéggalu salaamaaleykum wa rahmatullah. Euh, lu jëm ci wàllu euh, politik jarul sorel jarul jegeel xam nga lu tax borom bi subhaanahu dafa noppi ci jaamam ku ma ne woon danaa toog ba dugg ci politique ma weddi ko gis nga fi nga toog nii hmm. toog naa fi ak bu baax. koo xam ne bu bëggoon a euh, euh, toog ak président de la république léegi mu toog ak moom waaye ba ma laaje dama ko ne awma ci benn ambition te tey maa ngi nii ci biir kon jarul dugg ci détail nañ dañ dund tey lii xew muy bésu tey bii euh, Seyda Moussoukoro ànd na ak Pape Demba bi tey pour fas yéene silone département bi liggéey ngir yàlla ngir euh, jàppale càmmiñam doomam waaye aussi ngir jàppale réewam ngir aussi satisfaire li nga xam ne moom la ay kilifaam bëgg ngir président de la république jot ay fam kem ni mu ko bëggee. alhamdulilah maa ngi leen di gërëm di leen sant salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jazakumullahu xan waa Uras Info.